un cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawféex di fajkat cosaan booy jeufandiko gàncax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaolack Thiès wala Sakhindar Ndar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo len di may sen Tabas ki rendi bu rendi ku nekk das bakkan pour mën rendi ay pexe teg di bu feet bi lu ñu la wax suba dinañ ko wedi Jigen ñi bëgg ay cheveux yu cher ñu ñu ko sekkal da yor ñu xeer bàyyi gën a dëggal fit ñi liggéey di fay ku weer eh. ku nekk pexeem ñi doñu doyuwaay Menopi di ledekar Tak sayakar te sa yaakaar di samba allah eh. Tak ren bi doy na kaa ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeem tabaski ren tabaskiren bi doy na taal bu nekk pexeem tabaskiren bi doy na taal bu nekk pexeem bateau dem bateau costé bu la ben demu jeg bu forox frege ñenté ma ngi ni tok fassé ñew nak ñew ñew nak sey sey ba mu jeex wa da nga contant ci limay bay joy ni yow lay xaar nga paré rek kon yow daal ci ma la déké yow da nga ñew gaddu sey bagage ngir sey ci ci kër gi sey sey ma dé dama sey ci la wax la xeex. yow est-ce xam nga ne lu ma métti sama àdduna rek yaa ma ko teg. yow yaa ma ko teg. aha nga ba fàtki na dem. nga ne yee yaay dangaa yëgër yëgër noonu def sa sa sa peew di jéem a jaay njool njo di jéem a jaay am njool noonu. waaw ma la faalewu la. man yow xool nga ma moor. man loolu je te corsonne na part. je ne te concerne pas sama yónnewu ci. man ngay jëndee ak ndaama bu ñuul gàtt te ñaaw. xam nga lu mu doon yow waxuma la sëy de yow kaas yi ci kër gi sax doo leen sëy. Eh, ko sa soxla. ca biti nga jëm. ku sëy dama koy def wut ku ma sëy lay force laa koy def. sëy sama kër. par bëgguma la. bul ma bëgg baal ma bëgg la. bul ma bëgg. normal lay bëgg nag ba Samba di ca Demba. waaw boobu façon bëggee xanaa bi mu wàccee yàggul. inauguré. ah mi ngi soog xew. Ya. waaw man man bu ma ci boobu façon bëggee. bëgguma la bëgg la far force façon bob nga may dugal. sa bëgg compté wul sama bëgg moo compté te man maa la bëgg. comme nag da ngaa gis sa bagage bu sëñ. kër gaa ngi fauteuil yaa ngi commande télé clim ngi restel nga nga ak yi. la wax. man ma yor ci sëyul kër laa ko. du waaw sëy. te yow sax bi yow. ah ma la boo demee fi nga may ba te boo ñëwee fi nga may sëy. waaye Mor mbaa xam nga ni la dugal ci man génnoo la ci man. kon xam nga ko danga waroon laaj sama CV xool sama palmarès sëy rek laay def ak noppaliku fii laay toog sëy sëy ba mu jeex te yow nag yaay kii ñëwaat maa ngi lay xaar boo demee taxawaar ba sa ñeex saf yàpp boo ñëwee ma jox la ndox mu sedd wi nga naan ko toog yow yaay kii sëy boy bi kana yalla jutde komo bañu tekko bos makka fan boy boy biñu tara yirni yalla mun ta ah, kiide kana ci kaw suuf mande bu mo gisee mom xam naan yeen da nga nek mag yu xam mag yu war am keltamu len kel ha salam alaykum salam ardo na nga def tawa yang ci da bi tawa Awanak, alhamdulillah tawa awana awana yow de nga bari loy ñew ci daral bi na ah. bari nga tank daral bi de ah. dina tok ker ga bam wacc nga fekk waaw chéri nag du ma ñëw si dara bi seet si la jabar su jabar kay boole boole nammee da lay seet eh, xaaral ma bàyyi leen ngeen. ala ala ala eh, eh ala. joor joor kay ala problème ah. ko jaxata ah, ah eh, joor waaye joor ah. ah daanaka kii sama jabar la kay sa jabar. ah, ah loolu moom dëgg la moom <laughs> wallaay wallaay mais xam nga jigéen dafa war a toog këram. waaw yow kat dëkkoo ca kër ga moo tax ma lay fekk si fii léegi nag man xamal lu ma fee indi xuloo ma xeexu ma. Hmm? xam tabaski bi ñëw na yow tamit te maa ngi war a ndugge war a def sama boog bi dégg nga fi ne nii maa ngi war a jënd ñaari saaku soble ñaari saaku pomme de terre man xam naa ne Balla Gaye bee mën nga ko fi bàyyi ndax xam nga waxoon naa la ko duma ma xar mu ndaw te en plus bi ma bëgg rek deux cent cinquante mille lay jaar. waaw gis nga li nga wax loolu yëpp dégg naa waaye bàyyi leen caaxaan laa wax. ñaari saaku soble ñaari saaku pompiteer mel ni kuy toggal mbooloo tabaski kay benn paquetu kii rek doyen eh. waa xanaa xalaatoo ñi ma war a tibbal. ma ne koolal nga koolal ren bul tibbal kenn laa wax ndax 10 000 francs naa ne wat heen dugg teel nii laa wax waaw man fi mu ne nii maa ngi jaaxle nan laay amee kar ngay nekk fii di wax ay wax yoo xam ne xamoo nan ngay de ndax. boobu da ngay kafoo la. waaw lan laay kam lii moo nekk sama poos kay jëlal e, nga dem du nga naan la ma mën a si tabaski damay e bugg jommi wala damay e bugg waar wala qu'est-ce qui c'est yaa qu'est-ce qui c'est yaa ah boobu boobu boo yoree jabar nga yor jigéen ngay ànd ak wax wax wax waxal ko bu nga bu nga am mu kam koy wax dul xam nga wax yow leer na leen yéen fii amatu leen fi tus yéen seeni kar jox ngeen ko maire gi yaa ngi yeneen kar bu ci des dokaane ngeen kala xale jigéen ñi nag nañ leen lekk nañu leen ba ngeen jeexal tak amatu leen fi dara a ah? doo ko wax loolu doo ko wax amu leen fi kat Balla Mbaye Balla Gaye bee ngay wax ne Balla gay da fi am Balla Gaye boo jox ah boobu ah ardo lay wax ah li ma wax lu leer nañ la laay waxal na leer ñoom amatuñ fi dara kii day ñëw di journal yëf yi ma di ko fay bu ko gontee bu ngoonee ma fay ay buum lay jaay buum mu ngi ne buum moom lay jaay fi amu fi tus de bala waxee am na fi Balla Gaye tamit yaaw jaar sax amu ko fi nan la lenn de laa lay xamal kër gee moom boo ñëwaatee fekk ma fa nee ma kaña man ak yow jeex na ji jii. Hmm, naka leer rek du leer ah. la bugu de. leer laa bëgg. Ah, yow nan da ngay fen di kat nan ay mas nga gis tabaski 2000 ay app bu nit yee peese di ko tabal yéen kay doxaane ngeen sen bop doxaane ngeen sen kar doxaane ngeen sen kal wax len licenciement ken duma ma man ken duma ma perte Un cabinet médical traditionnel Serigne medun Sey borom tawféex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gàncax ngeen mën koo fekk Dakar Touba Kaolack Thiès wala saxi ngeen 78 585 34 34 78 585 34 34 moo leen may sketch. bu ma noppi di la di xaar ta sa yaakaar sa soxla di la xar di sàmba àllaar tabaski ren bi doy na kaar ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na kaar ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na kaar ku nekk pexeem tabaski bi doy na kaar

pexeem tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeem